Sonko dafa dem démb di di inauguré siège am à Yoff waa Yoff yuuxoo ko génne ngeen ko seen site bi di ko yuuxoo génnal fii du sa place place su Macky la yuuxoo ko Diouf Sarr ko moom Macky Sall ko moom Sonko dem ci guddi gi xam naa ay ñu simulé taal seen siège pour bëgg ni waa kër Macky Sall ñoo ko taal état du créer violence c'est pas possible Sonko boo seetloo place bi la mën la mën a daje mais bu duggee ci quartier am problème parce que quartier yi en réalité dañoo am borom borom mooy Macky Sall dafa essayé doon essayé dem mu njëkkee yoof bu doon feneen noonu lay mel bu demee yoof waa yoof yuuxoo ko guddi jot mu taal siège ne waa APR ñoo ko taal ban intérêt pour taal euh, siège euh, kii yow nga ñu dàq la ci ngoon yow bi nga dugg ci quartier ñu dàq la yuuxoo la nga daw dafa fa dix minutes yéena ko bind dafa fa dix mu daw guddi gi ban intérêt koo xam ne dugg ci quartier lu ñuy taal ay kiyam foog mu bàyyi jëfi bàll poudre yooyu muy def Ousmane Sonko ban révélation la musa def ngeen vérifié ko mu nekk dëgg ban kaa ñu lim taxaw na ne terre bi mille nangam milliards lañ ko fayee moo ko wax wala waxu ko ne Marseille sax dafa cent mille quatre cent milliards ñu mën koo ubbi pour mu mën ko ubbi déjà kenn ubbiwul terre bi c'est pas vrai Macky Sall président Macky Sall génn ne six cent nangam milliards dañ koy ubbi dans six mois lay dox est-ce que Ousmane Sonko indi na benn réplique dégguloo ko Ousmane Sonko jiñ na 94 milliards ne jël ne ko donc 94 boo ne dañ ko jël mooy jël nañ ko pare c'est déjà détourné ñëwaat moom ci woom ne xam naa 46 milliards fi ñu ko dugal banque bu mu jaar donc dañ ko dugal 46 milliards la pourquoi moom a dit 94 milliards. ban révélation la Ousmane Sonko Moussa def nga vérifier ko mu nekk lu wér ñu topp ko mu nekk mu nekk dëgg ban pourquoi ngeen nangu Ousmane Sonko di leen def ci waxi bàllu puudam yooyu. ah nit comme moom gëmul boppam en tout cas il doit pas honorer sa famille gëmul boppam gëmul sëriñ si daa ku nga ku contre sëriñ tubaa contre El Hadj Malick bañ sëriñ Touba bañ El Hadj Malick bañ maam la loolu tax waa yox duma ko démb dégg nga bañ nit ñu baax ñi bëgg fi indi mu baax doo dara Ousmane Sonko du tus lu du xoolal soskat la voilà la vérité lu mu wax day fenn le plus grand menteur de la République du Sénégal s'appelle Ousmane Sonko c'est un menteur les faits sont là man waxuma ko ay jëfam ñoo ko wax et puis boo ko lan nga mi lan lan moo tax nga xam Ousmane Sonko révélation sosal nit loolu nga ko xamee bi nga koy xam loo xam loolu nga xam sosal diw def na nangam diw sàcc na nangam on n'a pas besoin de comme même rek comme jàpp ne nit ñi ay sàcc lañ moom moo baax na wan su projet de société bi mu war a indi Sénégal lan la fa la jëmee Sénégal c'est ça lañ xaar ci moom deuxièmement je pose à des questions à monsieur usmaan Sonko Ousmane Sonko cent et quelques millions yi ñu wax anglais yi ñu wax yaa ngi woon doo wax tubaab yi ndax dañoo dañoo coloniser Sénégal milliards million yi ñu wax ne la ko joxee Angleterre na ko rep dañ ko posé question précis dañ moom noo taxaw ne Sénégal man benn kër laa am sama sama mbokk ci leen dëkk moo ko wax waxuma ko sama ñaari code laa am benn bi CBAO benn bi xaw ma fan bu ci ne amul un million moo ko wax keneen génn journaliste comme yow ne ne ko am nga laaj nga douze milliards ci ci société benn euh, euh, euh, benn négociation jox na la saa nangam million ñu jiñ ko ko am nga immeuble ouest foire jiñ ko ko am nga plus de cent titres fonciers da nga doon jaay ay kër ba nga nekk secrétaire général syndicat te man du ma ko wedd parce que ba ñu nekk secrétaire général syndicat ñun waa synthèse ñoo ko doon jàppale man syndicaliste la xam naa xam naa am na lu bari xam nag ko waaw léegi loolu yépp la ko ak ngay rëy nga ne xale bu rëy nga bu la yaa jub yow loxo bi seen nga téyel clean mais wol caméra ñu toog nga teg point par point nga demoon démonté ko benn par benn devant les Sénégalais ngeen ni nangam lañ ma laajoon lii amul lii amul mais yow tontu wax nga dañoo defaat yenn yenn yenn accusation en gros Sonko c'est un bon à tey bu procureur woon suba suba Ousmane Sonko lan la bëgg su ko procureur woon suba suba suba ñu ne voilà Macky Sall mu ngi tey benn opposant daa ragal daa ragal Sonko coono naat ku yéen a njëkk a bind loolu. mais non mën nañ dem à une semaine de l' élection présidentielle un candidat président ngeen da koy convoqué même en France loolu am fa même aux États-Unis dañ la xalaat nañ la bàyyi ba élection yi passé Sénégal dafa am ay réalité aussi tey bu Macky Sall bu procureur woowoon woowoon tey Sonko réew mi yëngatu ñu ne voilà Macky Sall dafa ragal ay opposants dafa dem ragalu ba ñu ñëwoo Sonko Sonko loolu la bëgg dafa bëgg a indi jiixi jaaxal xol duñ ko woo dañ koy bàyyi ak ay kàccam mu dee ak moom campagne ñu duma ko andiwaat dossier teg ko sur la table ko Karim Wade détourné alalu réew mi ñu tëj ko ngeen dafa dafa dafa dafa ragal ay opposant te ñoom ñaar kenn mu si gagné Khalifa Sall sax gagné na maire Dakar mais ñetti kër yu tegaloo Karim Wade musu ko gagné ñetti kër yu tegaloo ngeen da ko ragal mais léegi te bu ñu tegaatee jàpp Sonko bi nga xam ne musu gagné benn plus fort reste yéen Sonko bi ngeen di xam nga lu ma ko assemblée nationale plus fort reste koo yokkal ay voix pour mu nekk ma nekk député motagul trois ans ngeen ni Sonko le le grand kii Euh, le grand euh, opposant de Macky Sall opposant de qui il est leader de quelle ville il est kii xam nga mën nga ni sax am na quatre députés il faut respecter cette partie mën nga ni Idriss Seck am na tant député mais Sonko plus fort reste la la jàlle di kàcc ci réew mi ngeen wax wax Sonko bu la ko wax wax Sonko waay